diko ñoom mami baabi ñoom ñëpp ña nga ca Bakel am na nañu mbégte ak contentement bu mag di ànd ñun seen émission Kouthia Show waaye mbokk yi ñu ñu Ablaye Anne nekk ca Cambérène ñu koy nuyu Nadège Nokel euh, euh, Nicole Mendy depuis Las Palmas Isabelle des Parcelles Assainies nu nañ tamit bu baax képp koo xam ne yaa nga am mbégte contentement di ñu seetaan wala nga ñuy déglu la famille Samb organise euh, bu baax foofu benn ñoo xam ne ay soppee Bamba Fall ñoo nekk foofu ci Médina ñu ngi koy bëgg di ànd ak moom ñoom Jamila Diop Abdou Karim Diop et toute la famille depuis rue 19 angle 8 et 10 Yatma moom tamit euh, di Baye Mohamed et toute la famille am nañu mbégte contentement di wax un grand big up ak képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show di ci nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi déglu di am mbégte ci Badara Thiam ak soxnaam Aïcha Niass surtout Baye Niass la foofu ca Médina Baye waaye di nuyu tamit Yatma Si Baye Mohamed ñoom Alima Chéri Moustapha Diané euh, depuis France di nuyu tamit Calal Fall ca France Aziz Pouy euh, nekk ca France ak euh, ki nga xam ne moom mooy Koumba Diop ca France et toute la famille ñu ngi foofu euh, la famille Samb ay Aïda Sarr Venus Kassé ñoom ñëpp ñu ngi nekk foofu di am mbégte bébé Fadel Barji nag ñu ngi koy nuyu de passage depuis Malika di am mbégte contentement coow li nga xam ne moo am diggante Balla gay ak Bombardier boobu ba léegi Bombardier mooy génn ci journaux yi di wax Balla gay dafa na teg noppi ndax dégg ngeen journaliste bu laaj Balla Gaye mu tontu bu weesoo jouru combat bi ca guddi gi bi mu waxee supporters yi nañ ko baal àq Balla Gaye nag moom ci boppam waxugul ba léegi mu ngi toog këram waaye Bombardier nee na du bàyyi kenn di taqal li nga xam ne moom mooy drapeau li nga xam ne moom mooy roi des arènes nee na nag ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye day tappale ci seeti Bombardier <laughs> waaye mais comme <laughs> mais comme mais comme yow dégg naa bi nga gañe ba léegi sumee ko yaa ngi wër biir mbuur <laughs> waaye mais comme yow ngi wër biir mbuur yow bi nga gañee ba léegi dégg naa solo yére ni mu gañee woon daanoon noonu lay wëree biir mbuur ak ak ak ak koppi ñu seeti Everyone. leen ma way man boobu léegi maa wax journaliste yi ma gañe sama gañe entraîné samay entraînement yu yàgg booy bi ñoo bëgg taxaw sama victoire naan dafa feebaroon billaay dara jotu ko dara jotu ko dara jotu ma may leen ma ma tëgkat sabari may leen ma yéen waa bëgg ngeen am ful ak fayda fu di werante bu leen nangu ne Balla Gaye feebar billaay dara jotu leen ma may leen ma may leen ma yéen samay fan waaye dama bëgg journaliste yi ñu bàyyi di bind naan Balla Gaye dafa feebar billaay wallaay taalaay sama benn may leen ma may leen ma may leen ma may leen ma may leen ma may leen ma may leen ma man Bombardier wóor na yàlla wax naa ko sama yaay nee naa ko li Balla Gaye di def nii yaay bu ko Balla Gaye bàyyiwul bilay dinaa dem géejawaay ñu xeex yow leen ma may ma rek may ma s'il vous plaît may leen ma man nangu yenn yi gañe ko ba pare daan ko ñu wax doomam bu ndaw bi mu amee naan sama papa daanuwul nii la def maa ko daan maa ko daan may ma may ma may ma may ma Aziz Ndiaye nag day dof doflu yàgg na organiser ay combat drapeau jot bu toog ci plateau bi gërëm ba day gërëm ba weñ dugg ci gémminam bii pas bi dafa daw gërëmul dafa daw c'est pas sérieux c'est pas leen ma may leen ma ana Malick Gakou Malick Gakou ñu tuddee drapeau bi joxawul drapeau bi ba tey ngeen foog na yooyu neex na ci xol waaye lu munti aman maay roi des arènes na Balla damay may wax wax moom Balla yaa ngi may seetaan dofuloo dina jàpp la bul dof dofloo da ngay tappale ba may bëre yow ngay romb di wax naan ma tey nga may nokkos jël sa géej ju googu yabooy boobu di ma woyo man maay roi des arènes bi lay feebarul man maay roi des arènes bi lay feebarul day leen ma reporter yi nga xam ne dañu doon supporter genn wàll gi yëpp Balla Gaye nañu faraloon ma daan ko ñu naan xool ay ndax taxul suuf loolu du yoon loolu du yoon ana supporter yi Bombardier yi ana Seite! may leen ma ñuy wax jabaram buri naan barke démb léegi day wàccu buri waxul dëgg billaay du dëgg man dama ko dóor daan ko maa ko ëpp doole man Bombardier kenn du taxaw sama victoire moom bi ñu feccee may leen ma bi ñu feccee xëccal mbaal la xam ne mbuur ñoo moom mbaal xëccal xëccal